daat ngay signé daal di wax ne bàyyi nañ la yéen kaay gi di Sud Quotidien nee ñi nga xam ne ñooy soldats yi montre yi nga xam ne moom la ñu takkoon ak casque yi ak gilet pare-balles yi maanaam yére yooyu nga xam ne moom la sol ngir nag mën a aaru ci balu fetal yeeg mboolem arme yi nga xam ne yoroon nañ ko loolu lépp ñi nga xam ne ñooy rebelle yi teg nañu ko loxo journal bi di Rewmi Quotidien nee na rebelle yi ba jël seen arme yooyu sax jàppante commencé woon am ne moom la wuute gi nga xam ne ba léegi des na ci mbir mi ca conseil départemental bu Kaolack yéen a kaay gi ne ki nga xam ne mooy Youssouf Bengelone mi nga xam ne moo àndoon ak Serigne Bouba moom la ñu waxoon ne moo gagné conseil départemental bi ñu demoon ba war koo installé mbir ma ñu daal di koy fomm bi nee na cour d'appel bu Kaolack nee na dafay compté waat mbir yi ki nga xam ne nag mooy Youssouf Bengelone moom dafa jàpp na lii scandale la àllarba ji nga xam ne moom la ñu tëg bala dina amal ab mars a kaay gi di laas moom xëy di ñu xibaara ci journal bi naan ñu Matar wul benn yoon li nga xam ne mooy parité bi ci bi yéen a kaay gi di Dakar Times xëy na lan moo ko jot ba mu lànk kandaare bañ a nag tabb li nga xam ne mooy a premier ministre te nag bu nëmewul a premier ministre na leen leer na jamono ji réew mi dara du dox demul ci nga dikkul mbay laara yéen a kaay di enquête ne na poste premier ministre Macky Sall ba léegi ci ay calcul la nekk ndax am na ñenn sax ñuy wax ne jamono ji Macky Sall ma ngi violé li nga xam ne mooy constitution bi ñàkk nomi gi nga xam ne ñàkk na ko nomi ab premier ministre yéen a kaay nee na lu jëm ci wàllum poste premier ministre jamono ji gars yi ñoo ngi koy xaar ba gi kan lay doon Macky Sall moom gën di yokk nag li nga xam ne mooy jeexi jaaxa gi Bamba mi di Macky Sall daan na ko nommé niki démb ministre conseil yéenekaay gi daan nay dellu si ci médiation bi ak audience bi Bamba Fall séq ak njiitu réew mi gi di réew mi quotidien nee na njiitu réew mi di président Macky Sall njiital Union africaine dina dem ca diwaanu Paris la France ngir nag amal fa am ndaje danañu fa waxtaane lu jëm ci wàllu Mali waaye nag li am ba desal na ñoo wax ne na ndax ñi nga xam ne moom la ñu nekkee biir Mali maanaam loolee moom munta wéyee te nag ñoom France ñoom xam nañ ne waa Mali xajoo wuntuñ leen yéen a kaay gi de libération xëy dañu xibaar naan ñu mbambula moo ba yéen a kaay gi ne na ñi nga xam ne ñoo nekk conseillers municipaux yi nekk ci commune yi nekk Géejawaay maanaam ñooñee ñoo séddoo suuf sa ak ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci ville bi ñoom ñëpp daal ñoo séddoo ci suuf si nga xam ne moo nekk ci littoral bu Géejawaay yéen a kaay gi de libération moo di ñu xibaar yéen ñu xibaar naan